maaleykum rahmatullaahi taala wa barakaatu. situation la chaque année lañ koy def ci weeru koor ñu tombeeg le leen di woo woo góor di ngeen ñëw jàppale ñu ren nag dañoo changé milieu bi ñu koy defee suñu see baax di yéen ñëpp ku ci ne daal ñu ngi lay woo nga tàllal suñu loxo ko ngeen jàppale ñu ci yàlla lépp luñ ci am dañ koy dugalaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sant ah li ñu fi tax a daje nag lenn rek la mooy li nga xam ne xameel nañu ko muy conférence boo xamante ni bii ay at a ngi nii si kàttanu yàlla ni du ko def ba fi mu nekk nii si des fan yu néew la yàlla def na jàmm ne conférence boobu saa yu ko conférence ak oustaz Alioune Sall bu ñu paree lépp fii la jëm si si màkkaan mi fii parce que ñun tey jii fii mooy suñu jubbu tey nag jubbu bi ñu la xamee bu ko wat ba tax na ay dëkkandoo moo taxoon ñu daa ko def fële ren nag yàlla ate bi ñu toogee suñu biiru waxtaan ñu ne nañ ko def fii te it xalaat naa ne koo wax rek dafay xaw mel ni sax dënnam du rëcc fii la ñu ne la fii la nga ne alhamdulilah rabbil alamin waaw loolu daal euh, illa bi ba xamante ni bi ñu ngi woo ñëpp waaw ñu ngi woo bàyyi bàyyiwuñu kenn ñun conférence bi handicapé yi moomatuñ ko waa Grand Dakar ñoo ko moom bu dee mbubu tey waa Grand Dakar lañ koy solo ñun li ñu war mooy woo nit ñu ñëw teew waaw woo nit ñi ñëw teew suñuy xarit suñuy am di jàmm waaw fii daal fas nañ ko yéene liggéey ba mu mel ni panaal ba nga xam ne ëllëg bu ñu demee ñeneen ñi fi ñëw it gën a liggéeyaat association bi gën a dox waaw loolu daal laa amoon lu ma si sànni en attendant. taalal suñu loxo mag ak ndaw góor ak jigéen yàgg nañ taalal suñu loxo ñu jàppale mais bii da cee rawati te bii dañoo fas yéene def tey suñu gox bi nga xamante ne fi ci siège bi nekk fa lañ fa la ñu nekk fa la ñuy yenn fa la ñuy toog ba guddi ñu ñibbi dañoo bëgg a wane suñu bopp ne fii ñu dekk xam ne fii lañ nekk moo tax ñu bëgg fii di woo nag bépp doomu Grand Dakar waa Médina waa Grand Dakar waa Grand Yoff waa Fass waa Wakaam bépp daal fu waay nekk rek a ngay andi café ak balit rek ñu lay woo ñu ngi lay taalal jàppale ndax néew di doole ku ko jàppale ku ne yàlla ngay defal Le secrétaire général association des handicapés moteurs du Grand Dakar di lancé di lancer appel pour une conférence bi ñu def mercredi 13 avril 2022 fii le suñu siège handicapé moteur siège bi nag mu ngi parc Lambaye Nous avons janoo ak euh, cinéma Liberté nous, rue des 10 angles, 11 diables. donc nous avons commencé si président de la république avons dit que surtout qu'il nous yi Grand Dakar Nous avons représenté euh, euh, Grand Dakar Nous avons le premier magistrat de la commune de Grand Dakar Jean-Baptiste woo madame le ministre Ndeye Saly bien. Dieng euh, woo Assane Ndiaye nga aussi bokk na si suñu madame mu madame Faye mu nekkoon secrétaire municipal bu commune Grand Dakar woo madame Baké, mu Aïssatou Fall au conseil des collectivités territoriales woo euh, Ndeye Fat Diallo au conseil présidente de gox yi yëpp docteur Doudou Sen, directeur de la lutte pour la, contre le paludisme di euh, euh, suñu xarit suñu suñu Cheikh Fall ibnu euh, Ndiaga Fall suñu genn la koy Mansour Diop le grand commerçant de Grand Dakar vraiment di

vraiment di woo ñëpp ku ñu fàtte ñu baal ñu mais bàyyi ñu kenn kenn kenn kenn kenn kenn ah, waaw ñëpp la ñu woo ñu ñëw jàpp si parce que Grand Dakar yow moom yow moom yow moom mbir mi conférence waaw conférence bi conférence bi Alioune Sall moo koy def at bu nekk jërëjëf